ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéenay suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo tey nag ñuy waxtaanee kii di Aïssata Tall Sall bi nga xamante ni nii kaawam moo occupé li nga xamante ni mooy actualité bi depuis quelques jours mais avant loolu lépp dañuy sàkku ci yéen ngeen déglu extrait bi. une expression politique libre par contre ce qu'il faut interdire c'est l'apologie de la transhumance mais un Mais, si on poursuit la logique... Ce sont les mêmes, excusez-moi, ce sont les mêmes qui interdisent, comme vous l'appelez entre guillemets, le vagabondage des députés entre les groupes, mais ce sont les mêmes qui font l'apologie de la transhumance. Alors, cohérence pour cohérence, ils doivent commencer à être cohérents. Et moi, ma façon de penser, c'est que la transhumance, il nous appartient, nous, politiques, de la combattre de la combattre par des principes, par notre posture, par notre attitude et par nos idées. On aura beau légiférer. Si le moral des politiques, c'est de transhumer, eh bien, on vaincra difficilement la transhumance. Ah. yéen a ko déggandoo ci vidéo bi maître Aïssata tal sal, di ŋàññi li nga xamante ni, di ñaawlu transhumance dem sax ba di ko tëkkaleeg li nga xamni moy vagabondage yamu ci mu politiciens yi dañu war taxaw temm xeex li nga xamni moy

xaj dañ koy woowee xaj parce que nit ñu mel ni ay Tall sàll mérito wuñ li nga xamante ni mooy respect malgré at yu ñu am parce que ci wolof dañu naan mag mag naa ba cim réew waaye magum saay-saay mag boo xamante ni day wax di weddi mag boo xamante ni day wàccu di ko lekkaat mag jooju noonu mérito wul cër mérito wul respect te il faut que nit ñu mel noonu ñu weer leen pour que génération yi nga xam ne ñi ngi ñëw xam nit ñi nga xamante ni ni duñu ay modèle waruñu leen roy baaxuñ ci réew parce que boo jëlee réew mu mel ni Sénégal du ñu gaaw a fàtte te dañu yàgg ndax du ñu présenter ay nit yoo xamante nii dañ leen di présenté comme ay modèle di leen jàngale ci école yi di leen jàngale ci wàllu histoire alors que boo lëj ma dee ba ci biir du ñu ay nit yoo xamante ni war nañ leen roy gis nañ fi ay exemple yu dul jeex te ay at yi ñëw ku ci mel ni maître Aïssata Tall Sall mun nañ ko présenter comme koo xamante ni référence la moo tax ñu sàkku ci képp kuy yëngu ci li nga xamante ni mooy wàllu multimédia ngay yëngu ci wàllu def vidéo ngay def ay vidéo yi ñu mel pour que ëllëg génération yi nga xam ne ñu ngi ñëw ñu xam kan moo def lan kan mooy kan kan moo fi waxoon lan. Aïssata Tall Sall nag rejoindre na kii di Macky Sall droit am la am na ci droit mais ñu nit am nañ droit fësalaat kàddu yi nga xamante ni nii moom moo ko waxoon démb pour xamal ko ni gëmoo dara ci li nga doon wax. da nga bëggoon nax nit ñi utiliser li nga sénégalais pour am li nga xamante ni vidéo bi ñu suivre léegi muy critiquer li nga xamante ni mooy transhumance wëlbatiku def lu donc ab mag la boo xamante du wax dëgg lépp lu mën a wax tey ëllëg mun na ba mu vidéo la boo xamante ni da doon wax ni du rejoindre kii di parmi ceux-là, et j'en suis encore, qui pensent que le Parti socialiste doit avoir un candidat, quelle que puisse être l'alliance. Pour vous, un soutien au président Macky Sall pour un second mandat est exclu Mais bien évidemment, parce que le Parti socialiste doit à son programme. Nous, nous ne sommes pas dissous dans Benno si au moment où nous signons cette parti officiellement soutenait le président Macky Sall Eh bien, à ce moment-là, j'aviserai. Je vous... rejoindre Macky Sall parce que il faut que parti socialiste am candidat mais laaj bi ñu laaj est-ce que tey parti socialiste am candidat tontu bi moi, déedéet parti socialiste amul candidat ci élection yi ju dëgmal te li gën a garaaw li gën a yéeme ci mbir bi mooy moom Aïssata Tall Sall ak Khalifa Sall ak yeneen nit ñoo porté woon combat pour wax ni PS dafa war am candidat moom ak ñeneen pousse Khalifa Sall ba ci digg bi parce que Khalifa Sall mi ngi commencé am problème depuis bi mu ne dafa bëgg a présenté wu ci élection wu présidentielle du Sénégal yu 2019 yi ku ci mel ni Tall Sall nek ci ginnaawam di ko pousse pour xamal ko ni mën na ne pousse ko nak ba tay mu nek kasso mu am ñàkk jomu dem rejoindre ñi nga xamante ni ñoko don ko doon xeex don ñoo doon xeex li nga xamante moy Khalifa Sall bi mu doon défendre moom Aïssata Tall Sall ay nit yu melni Aïssata Tall Sall waruñu sax wax ay doomi adama di leen deglu parce que ay nit yu wu dara lañ ci dëkk bi ndax seen comportement ñu melni ni ñoom ñoo tax kenn gëmatul politicien waye ba jaxagul deglu wa leen extrait bii nii question bi man suma doon and ak mom nga yaakar ni président Macky Sall fofu mu tollu ni warna ma euh, proposer lu bari de yaakaaruloo loko fooguloo loko bo len ko xamulee sénégalais ñom xam nañ ko wala tax ma taxaw ni dis 18 ans rek may opposé bëgg opposition la wala bëgg bañ sa bopp la wala ndax man dafa am li ma gëm li ma gëm ci loolu laa nee li ma gëm loolu laay liggéey jiite réew mii bu tudd Sénégal laa bëgg te incha allah dinaa sa àgg. ci vidéo bi mu ne Macky Sall dina génne alal ju takku pour. xëcc ko ci wetam moom Aïssata Tall Sall xëy na loolu la Macky Sall def laaj bi ñuy laaj mooy ñaata la Macky Sall joxe ci alal ñaata la ko jox ngir mu jaay ngorom amul sax ngor ndax nee na ngor moom ak jom ku ko am kenn du ko jaay waaye ñaata la ko jox ngir mu dem rejoindre ko alal bu takkul la xam naa kon yow Aïssata Tall Sall da ngay jaay sa bopp mbir dañ koy wax nu mu demee parce que defuñu lu dul indil ko kàddu démbam yi li mu waxoon démb lañ ko indil tegal ko ko Aïssata Tall Sall dafa jaay boppam. li ci ni ñu war a comprendre mooy ñu ci mel ni ñoom ay nit la yoo xamante ne nii alal kese moo leen tax a jóg ndeysaan dañu yàgg opposé wu nekk ci opposition bi sonn lool léegi nag ñu ne nañ jël suñu wàllu ci li nga xamante nii mooy pàccoo réew mi dañuy pàccoo Sénégal sans même ñu xalaat sénégalais yi nga xamante ni nii ñu ngi dund lu metti jamono ji te li ci gën a yéeme mooy bërki démoo njaay kot la doon critiquer di ñi projet bi nga xamante ni Macky Sall def na ko fi rawatina bi ni bi du Sénégal. tous les contrats se négocieront au vu et au du Sénégal. et surtout on organisera un débat public au minimum à l'Assemblée nationale mais qui permet au président Macky Sall de choisir que le TR est une priorité pour les Sénégalais s'endetter au nom du Sénégal pour plus de 800 et quelques milliards sur un tronçon de 35 km que nous allons payer même au-delà de son mandat. Qui lui a donné cette autorisation Personne. Même pas l'Assemblée nationale. Bien sûr, elle vaut ce qu'elle vaut, l'Assemblée nationale. Mais on aurait pu au moins y mettre les formes. Dire que pour ce montant-là, la représentation parlementaire devrait avoir son mot à dire. Tu vidéo c'est total ça, xaalis bi ñu def train express régional du parce que Macky Sall dafa rendre compte assemblée nationale avant muy jëmmal li nga projet mais est-ce que Aïssata Sall depuis bi mu wax Macky Sall ministre présenté l'Assemblée nationale est-ce que projet terre bi arrêté nañ projet inauguré nañ ko est-ce que ndaw sii nii bu doon gëm na dara dina nga d'autant plus que situation bi ba légui changé wul tey la wàllu gëna ay ak nguru Macky Sall il faut que ñu respecter Sénégalais yi bu ñu yapp légui nak d'après lépp lu mu waxoon mu ñëw tay nañu Macky Sall mooy candidat bi gën ci Sénégal. ba xool ba xoolaat ba settiwaat mbir mi ñu xam ni pour ñun yoon bi gën a baax bi gën a jub pour Sénégal. mooy jàppale président Sall ndax moo am yaa ñàkk jom parce que bu fekkoon ni am nga jom di nga xalaat kàddu yi nga xamante ni waxoon nga ko démb bu fekkoon ni am nga jom di nga xalaat principe ak valeur yi nga xamante ni moom nga doon défendre demb ba yenn ci sénégalais yi respecté la di ci ci bàyyiwaat xel laataa ngay jël décision bi ni mel bu fekkoon ni am nga jom di nga xalaat xalifa Sall bi nga xamante ni moom nga doon défendre démb jàmmaarlu nguur gi fi ne tay mu nek kasso nga dem and ak ñi nga xamni ñom nga doon ngañi tay nga and ak ñom dëddu ko won ko ginaaw waye su doxalin ak sa jëf wu lenn luddul dul li yenn sénégalais am ci jukkoy politiciens manam wor katch manam wax luddul deug ak tamit wax lo xamanteni yow ci sa walu bop té te lepp buñ ko limi wane suñu homme politique yi respecté wuñ sénégalais yi ne ñëpp nak mais ñenn ci homme politique yi respecté wuñ joxuñ cër di sénégalais yi considéré wuñ leen xooluñu leen comme ay nit manam Dal ay mala la leen jàppe yoo xamante duñu xalaat ay mala yo xamanteni ni nii xel mu lañ yor lu leen wax tay suba ñu ko waye inshallah bu nexi suñu borom lepp dina changer dina ak élection yu 24 février 2019 yi sénégalais yi li leen ñaan moy raxas jeli fi xeetu homme politique yi nga xamanteni ni seen carrière gep lenn la moy wor katch wax lu dul deug jaay li nga xamanteni ni mooy seen tekku tekkuwuñ dara ci réew mi. donc ki moy Aïssata Tall Sall parce que tay ak internet ak archive yi fi ne ak xaar la bi nga xamanteni ni moo ne Sénégal képp kuy wax na nga xam lan ngay wax parce que ñu nangu yenn mbir yi di jall ku fi waxati ay njombe dinañ la weer ci espace public bi parce que espace public bi moom fépp la moo xam ci internet moo xam ci télé moo xam ci rajo moo xam ci YouTube fépp espace public la boo xamante ni ku fi wax na ko su dul noonu wala nga wax fi waxet dinañ la weer sénégalais yi xam yaay kan doo wax ko du dëgg dinañ la weer pour que génération yi ñëw xam kan mooy kan kan mooy nit ki ñu xam la parce que dootuñu nangooti ku ñu nax te Aïssata Tall Sall ci nit yooyu la bokk koo xamante ni politique na bay bëgg a dee mbir yi dëgër mu ne xaaral ma dem lekk ci alalu nguur gi donc vidéo bi tay loolu la woon ñu jagleeloon ko ay Tall Sall transhumant bu mag bi nga xamante ni nii rejoindre na kii di Macky Sall ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen vidéo jàngeen jëf